salaamaaleykum mbokki sénégalais euh, tey tey jii nii association waa étudiants Kédougou bu ñuy wax ARK association des élèves étudiants ressortissants de Kédougou euh, ñoo réunir fii nii tey ci seen immeuble pour jéem a en tout cas dénoncer quelques faits ñu xam ni tey tey jii nii nous les étudiants de Kédougou ñu xam te ni euh, nous sommes victimes donc de ça. mooy suñu tu titre euh, euh, point de presse bi mooy halte aux obstacles endémiques de Kédougou dañoo bëgg a xamal ni waa sénégalais ni que tey ñun étudiants Kédougou yi euh, société minière yi nekk Kédougou ñoom dañuy préférer jël ay seen jël ay seen waa dëkk ba jël ay ay seeni i ay seeni i morom jël ay seen waa waa famille ñoom ñu liggéey ci société bi alors ko ñun waa Kédougou ñoo xam te ñoo si gën a sonn. retombées néfastes environnementales yi ñun si suñuy famille ñoo ñoo si gën a sonn produit ñu ñuy utiliser foofu noonu dégradation environnementale déforestation yi fu am Kédougou yépp ñun ñooy premier ñu xamante ni daal son les premiers impactés mais nous on voit aujourd'hui les étudiants sont marginalisés si wàllum employabilité par rapport à ces sociétés minières la moo tax tey jii te tey jii nii on lance un appel à ces sociétés et aux responsables de Kédougou ñu jël seen matuwaay pour que étudiants yi tamit bokk si ñoo xamante ni war nañu mën a tey liggéey si société bi si société yi nekk Kédougou pour mën a jàppale seen ay waajur pour mën a jàppale Kédougou parce que ñun ñun kese waa euh, Kédougou kese ñoo mën a développé tey tey jii nii Kédougou développement Kédougou mënul jógee feneen si de ñi ñi dëkk Kédougou si ñoom kese la mën a jógee en l'occurrence les étudiants. Euh, beneen point bi mooy ñun étudiants Kédougou yi depuis deux 2006 ñu ngi dakaar fii ci ay location d'immeuble ñu ngi leen ñu ñoom ñii société minière yi nekk Kédougou ñu ngi leen di solliciter encore ñu jënd fii nii ay terrain moo ñu gën a location ñu fi nekk depuis 2006 ba léegi ñun tey tey jii nii on a fait carré sur les propriétaires 2006 ba léegi on peut pas imaginer jusqu'à présent que nous sommes dans des ñun ay terrain la ñu bëgg ñu construire comme ay pavillon pour étudiants yi ñu mën a dëkk si bu ñu jógee si loolu tey tey jii nii faa ñu xam tamit ni que Kédougou am na ñoo xamante ni am na problème ñoo xamante ni vraiment Sénégal tey tey jii ñëpp war nañ ko mën a dégg et ak ak kii ak askan bi yëpp tamit surtout ñu ngi interpellé état bi par rapport si point yi muy maanaam si euh, si euh, district de santé bu Kédougou tey tey jii nii amuñu sax anesthésiste. moo tax bloc opératoire bi c'est carrément inopérationnel mais loolu c'est c'est inconcevable loolu kenn mënu ko xalaat les femmes enceintes là tey tey jii bu ñu amee complication fa lañ jëm Tamba Tamba kaw Kaolack lañ di eh, eh, eh, kii évacuer mais loolu ça n'a pas de sens ñu ngi leen di interpeller ñu régler problème bi nii ces ces problèmes là au plus vite et en plus bu ñu jógee si loolu tamit centre de traitement des épidémies de Kédougou a été fermé. ak seconde vague Covid 19 bi nii bi bi bi bi euh, si bi nii nekk tey nga xam ne moo moo moo gën a doyewaar que euh, beneen euh, kii première vague bi ñun suñuy centre kii suñuy centre de traitement épidémie dañ ko tëj comme si nu on n'avait pas on n'avait pas on avait pas besoin quoi te récemment même même même hier on avait deux ce sont des choses vraiment que nu ñun on ne peut pas comprendre et nous sommes là vraiment que pour que les autorités de ce pays ñu déglu ñu par rapport à ça ñu xam ni vraiment ñun problème yooyu noonu war nañu ko régler au plus vite. donc juste pour euh, revenir encore si Promoville bi euh, ñun dañoo constaté ni que Sénégal daanaka région ñu bëri ñu ngi seen deuxième phase alors que tey tey jii nii Kédougou première phase pour Promoville sax démarré wuñ ko moo tax Kédougou tey tey jii nii foo romb ak poussière kese la région boo xam amuñu benn amuñu benn infrastructure. mooy les infrastructures sociales de base amul dara dara dara dara dara mais ça ça c'est inconcevable déjà loolu noonu ça dénature l'image de notre région loolu mënul nekk Kédougou la teete ji boo xam ne da ngay dem di sa ci ci district de sanité kii di district sanitaire parce que amuñu sax d'abord hôpital régional janvier bi la waroon ubbi xaw ma sûrement ak ku Covid bi nii bon ils ont sûrement repoussé mais suñu district sanitaire ñoo xam ne ni c'est c'est c'est le district qui est en charge de toute la amuñu amu amuñu dara amuñu matériel amuñu le personnel qu'il faut te loolu vraiment ñu ñu ñu ngi koy dénoncer te ñu ngi wax état ñu jug si collectivité territoriale nekk Kédougou tamit ñu jug si ndax lool noonu ñu mën a ko régler donc ñoo ngi leen di ñaan ñu jàppale ñooy ñëw régler seeni problème les problèmes de professeur à temps ñoom ba léegi nii ba léegi nii am na élève terminal yoo xamante ni terminal L2 amuñu professeur philo ça c'est vraiment inconcevable loolu mënuñu ko nangu te ñu ngi leen di euh, ñaan vraiment ñu def seen matukaay yëpp pour ñu mën a régler problème yooyu noonu tey seen seeni problème de table problème de déficit d'eau ah euh, problème d'électricité si wàllum courant bi ñoo ngi leen di ñaan daal ñu régler seen problème yooyu noonu yëpp tey waaw loolu moo taxaw tey tey jii nii suñu taxawaay vraiment ñoo ngi leen di remercier